dal leen ak jàmm seen ànd ak seen seen youtube Thiès Info seen rubrique urgent euh, kii di acteur bii di euh, euh, Jean Paul Dalméda moom moomee daal dinay génn àdduna moom moomee di nekkoon acteur moom dañuy ràññee war nañ ko ci lu bëri bëri ci millier bi nekk loo xam te ne lu tiis la ñu koy wu ñi nga xam ne ne ñoo di njabootu way acteur yi ak ñi nga xam te ne ñoo di way joué ya Euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax wéy leen di ànd ak ñun lii di màggal gi jamono ji ma ngay euh, tàggatoo ci fi nga xam ne moo di ci euh, dëkk bi Touba ndaxte tey jii moo war a nekk yamook lendemain màggal war a dajeek li nga xam ne moo di lii di cérémonie officielle bi nga xam ne lu bari bari ci ay nit jamono ji ñoo nga leen cee mu di ay nit ñoo xam ne jëm na ci ay ambassade ak yi ci aju ñoo nga xam ne daal dinañ teewle li nga xam te ne moo di màggalu Touba waaye ñi nga xam ne ñoo di way communauté d'organisation bi ñoom eh, dañ caa daal di kontaan ndaxte li nga xam te ne moo di lim bi nga xam te ne ñëw na ci màggal gi nee nañ baatare na record yi yëpp yi nga xam ne moo na ci am ndaxte eh, toll na ci cinq millions huit cent et quelque ci gën gaa néew ci ñoo xam ne daal nañu teew ci màggal googu.